man bu doon man la mm-hmm. duma ca dem <laughs> duma ca dem mm-hmm. parce que euh, dafa am loo xam ni mm-hmm. dem di ko fekkee naar dafa saay-saay am na naar yoo xam ne dañu saay-saay parce que du ñu jëlee fii sénégalais yóbbu ko foofu ci noonu suñu ne rafet na rek wala jongoma na rek mm-hmm. ñu jéem ci dara mm-hmm. am na loo xam ne jaru ko mm-hmm. da ngay toog liggéey doyloo yàlla yàlla ànd ak yow nga am li nga bëgg mais kanta nga dem nag topp ay naar wala nga topp ay sénégalais wala nga topp ay malien ba jëlee fa am ñëw léegi ana loo doon uuti li nga doon uuti jaru ko li nga doon uuti itam euh, ak li nga am du benn kon nag li gën rek mooy moytu kenn ku nekk na moytu gis nga nit dafa am dignité nit dafa am dignité dignité boobule waxtu woo ko dindee ci sa bopp deseetoo dara waxtu woo dindee dignité bi sa bopp deseetoo dara donc kon dignité boobu nga xam ne nit ki am na ko personnalité bi nga xam ne nit ki am na ko mais bu mu ko indigné bu mu ko dindi mukk ci àdduna parce que xaalis jaru ko xaalis jaru ko te gis nga euh, da nga dem topp nit mu jël alal jox la lam bëgg mu am ko ci yow nga defe ne fa lay yàlla indi ëmb su yàlla indee ëmb nag aha jeex na léegi ki ki nga xam ne dafa defe woon miis yàlla dogal mu ëmb ca léegi ba ca ëmb ba amee léegi ana miis ba anamu du ca du ca amul amul njëriñ amul njëriñ nit dafa war a seet li mu war a dugg ak lu mu warul dugg loo war a dugg nga dugg ca loo warta dugg nga bàyyi ko loolu mooy nit waaye rek euh, dañuy def miis senegaal Miss Mauritanie Miss Mali Miss Nangam nga ne dem bokk mais kaay pour nga doon Miss ah du doon caaxaande ba doo wuulu dal ci kaw mais bu dee amin bu sell jeex na jeex na amul leneen dangay dangay da ngay donc nañu dal rek euh, Euh, gis nga nit dinaa la wax leen bëgg bàmb nit li war a am ëllëg ak kañ lay dee xamu ko nit lan la war a am ëllëg ak nit kañ lay dee xamu ko da dox rek ba suuf sàngam ba yegg suuf sàngam rek nga yem da xëy am am bam yàgg nga ñàkk doxalinu yàlla la kon donc yow awal ca yoon wa nga war a aw doxal li nga war a dox ti bàyyi yàlla li ci des mais miis euh, xam nga miis ay ay ay caaxaan la rek parce que jigéen génn solo wanewu ba ñu ne ko yaa fi gën a rafet loolu amul fenn loolu bakken rek ko ko indi tubaab bee ko indi ñu daal di adopté wu ci tubaab mais li charia indi mooy jigéen daal na mel na mu war a mel euh, toog ci këram ba nga xam ne ku ñëw fekk ko fa waaye jigéen juy taxawaalu jigéen juy def miis jigéen juy def nàngam loolu affaire tubaab bi la mais du du diini tubaab la tubaab nag lépp lu mu def soo ko seetee ña cay bokk ñaare duñ doon ay tubaab boo ko seetee ña cay bokk ñaare duñ ay tubaab ay nit parce que xam ne ni nit ku ñuul dangay ngay dafa da ngay waaru bëgg na xaalis bëgg na yaa yaa siiw bëgg na daraja bëgg na yëkkatiku yooyu yëpp bëgg na ko mais ñoom ñun eh, gis nga ñun tubaab bu solee solam du ñaaw ci yow parce que parce que colom la mais nit ku ñuul bu solee solu tubaab du rafet ci yaw kon ku ne na yem ci aw wàllam rek ne nit ku ñuul yem ci wàllam nit ku weex yem ci wàllam su ko defee nag jàmm am waaye nga nga nga nga eh, nu mu tudd nga jël cër boo xam ne du sa cër daf lay gaañ daf lay gaañ. bu la ci natt doole ndax di nga neex a plaider wala wala ñu neex a taxaw pour dimbali la parce que mbiru àdduna la mbiru bakkan la ba ndogal la ca loolu naka. Ah, eh, ba tey danañ la mën a plaider. Eh. kooku dara nekku ci danañ la plaider. Uh-huh. parce que buñ la plaider wul nga dee ci kaso bi. Mm-hmm. waaw da ngay sonni ba bëri na bëri na ku ut avocat. ci la mu nekk mais baaxul. baaxul mais nag bëgg na cee génn waaye bañoon koo def nekkoon ci mbaax moo gën loolu soo demee nag ba dugg ci la ngay def da ngay wut awoka mu laayil la ñu bàyyi la nga génn waaye boo génnee nag ñu seetaan la ba xam nay def ah. ah ba xam ndax dangay bàyyi li nga doon def walla boog da ngay def li nga doon def da ngay bàyyi li nga doon def wala da ngay continuer li nga doon def danañ la plaider danañ la bàyyi léegi nag dañ la seetaan suñ la seetaanee nga bàyyi la nga doon def wuut yoonu mbaax ba tey kenn baaxagul la tey kenn baaxagul ñu ngi ci dina siraatal mustaqima rek ci ngay sax ba dee du tax nga am ko ihdina siraatal mustaqima rek ihdina siraatal mustaqima rek ba nga xëy dee waabud rabbaka xataa yaatiyaka al yaqin soo dee nag su la yàlla ne yoon wi nga awoon baax na alhamdulillah su ne la yoon wa nga awoon baaxul nga yaakaar ko alhamdulillah loolu rek mooy àdduna su ko defee euh, tënku ci mbaaxu yàlla tënku ci ndigalu yàlla moo gën la ci des